monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu sa nattangoo mi nga dendal di nuyu sa collaborateurs yi nga àndal yépp di nuyu aussi le directeur de busse mi nga xam ni mooy càmbar di jot li li fi jot a wax ba kër ministre des bi ñëw man nag maa ngi lay dalal jàmm ci pëncum ndaw réew mi xam naa ni doo fi gan ndax yaakaar naa ne nekkoon nga député bu mu jumul kon bu fekkente ni tey nekk nga fi ñëw fi ñu nommé la ministre feexte lay doon ci senegal yi nga xam ne xam nan la ci sab yar ak sa dal ak sa xam-xam man nag am na ay laaj yoo xam ni dinaa la ko jagleel ndax bi nga ñëwee ci bopp ministère bi jëlagul nga benn temps wala yan moyen nga bëgg a jël pour càmbar dèjà li fi jot a nekk bala ngaa continuer ndax ku ne xam na ni ay milliards de milliards lañu jël ci ngees keesu réew mi pour jalee ko napp gi mais fi may waxee yow nii napp gi am na ay jafe-jafe ak ay problème est-ce que yooyu pare nga pour xool bu baax a baax a baax fi nga ko jëlee ak fi nga bëgg a dem fan nga mën a teg say tànk pour sukkandiku ba yaakaar bi ñu am si yow nga mën fa àggal nga mën ko àggale première question deuxième bi mooy li nga xamante ne moo nekkoon contrat diggante Union européenne ak Sénégal ci napp mi fan ngeen si toll ak kan lay jeex est-ce que da ngeen a bëgg a signer contrat avec Chine kañ ngeen ko bëgg a def ak lu ngeen ko bëgg a defee ndax dégg naa ni yéen a ngi pare pour jox Chine waay suñu géej gi pour que ngeen signé ñoom ay contrat te ku ne xam na ni Chine. fépp fu mu dugg fu nekk yaakaar naa ne su boobaa li ñuy gën a jooy si napp gi moom yaakaar naa nappkat yi deetuñu am jën bëgg naa xam ci loolu li ñu soppaan mooy lu si mel ni Touba juróom fukki camion ñoo fay ñëw par jour camion bu nekk danga def au moins deux tonnes muy cent tonnes di jën la ñuy lekk Touba par jour yan moyen ngeen pare pour jël ko Touba ba nga xam ne dana am ay frigo ay ay ay firigo yoo xamante ne daan mën a téye jën yi ak marché de poisson boo xam ne dañ ko mën a def pour que ña fa nekk bu ñu ne jën yi jën yi du yàqu ndax ku ne xam na ne isin bi war a am si jën amul léegi soppaan mooy dafa am benn entreprise bu ñuy wax Flash Afrique jënd Africa Mer jox si xaalis bu baree bari war a tàmbalee liggéey waa environnement ñëw fa boole ko liggéey bi fi may wax yow ñàkk na si ay milliards yi milliards te dégg naa jël ngeen loolu bëgg koo jël pour signe ko waa turki te li nga xamante ñoo ko bëgg a def mooy waa poor te loolu nag il faut que assemblée nationale taxaw si ndax du ñu nangu ñoom ñu def seeni deal ak waa Turquie ngir li leen fay jox si intre bëgg sacrifier ay jàmbur ndax ñi nga xamante ñoo ñooy ah entreprise bi ko jëndoon ay sénégalais ñoo si nekk te xam ne nekk si biir te duñu ko wax fii mais daan ubbi incha allah ànd ak ñun ko mën a ànd ak pour def commission de enquête ndax port ni muy doxee du yoon wu baax te yaakaar naa lu war a xool la ndax ay Sénégal ñoo fa nekk port boo fa demee da ngay rus doo sax mën a noyyi ñaareel bi mooy amul benn équipement bu fa am ñetteel mooy ña fa nekkoon liggéey ko si néew jël nañ lépp delloo ko waa Bolloré mais ñun du ñu ay jàmm loolu dañ koy xool pour intérêt réew mi mais du ñu xool pour seen intérêt ak intérêt tubaab yi il faut que tamit monsieur ministre nga jël sa courage jël say matuwaay xam ne dana fi indi pour liggéey te lii dafay passé te war nga fi nga nekk nga marque sa empreinte ba nga xam ne prochaine fois daan xam ne yow mi liggéey nga fa foo mën a nekk ndax fi nga nekk nii nekk maire palaato xam nañ liggéey nga fi monsieur le ministre sa diggante ak ni fan ngeen toll ci accord yi ndax ku ne xam ne sénégalais yi nekk foofu sonn nañ trop ndax bu ñu nappee foofu la ñuy peese fa doog a indi maanaam mu ñëw euh, ndar bëgg naa ñu wax ma si loolu ñaareel bi mooy li nga xamante ne moo nekk ay marché yoo xam dañ ko lancé woon ay progrès tam am ay problème may wax yow nii ñi waroon jot ñëpp jotuñu fan ngeen toll ci marché boobu noonu pour ñu ko mën a defaraate en tout cas maa ngi lay remercier encore di la ñaanal yàlla yoon bi nga jëm nga am si ndam te gën a ubbi sa bunt te wàcc ci terrain bi te wax ak acteurs yi aussi te bañ déglu ñu sa wet kese ndax ñoo du la jëm fi nga xamante fa nga war a jëm sa vrai merci